2006 la nek formatrice en micro jardinage c'était même pas sama yéné parce que man dama jang def sama bac plus 2 en informatique mais d'après bima paré tok awma aw mané pas pourquoi pas par curiosité la ñué ci affaire bi ak bañ tok rek tendre la main donc limay wax rek dans la vie il y a pas de saut métier loy yëngu rek yalla mo la ciy fekk filet HLM 5 ci centre de formation et de démonstration bi à ay soxna yu jambar fi mars ba ci ga dañuy and ak di sargal Maria ni jigenu jambar di Mariama Fati mom nak ci ay la ñu Fati ak nan lay yëngoo file ci centre de formation et de démonstration bi ni ku ne xam ni euh, mois de mars moy wéru jigen ni nam sax jigen dañ ko wala célébrer saa su nek wante mois de mars da cey raw ata ñuy ñëw ci ñi ngay former ci formation yow bi nga def formation bi man juróomi fan la ka jang mi fan la ka jang ñëw fi di former mais bala muy ñëw di former dama def sama ay recherche parce que ku nek xam nga ne juróom fan doyul pour nga jàng bay mën a jàngale te comme man yàlla daf daf dama ragal defet ndeysaan bi may ñëw fii ak sa ndem si yàlla si yàlla ko yàlla yërëm soxna Abi Sall maak moom pour ñu ñëwaat fii pour pour ñu jàngale dañu dañu dem defaat euh, ni ñu koy waxatee defaat beneen formation pour mun a am capacité jàkkaarlook ay nit parce que boo jëlee initiative ne damay jàngal ay nit li ngay jàngale da nga ko a maîtriser ba léegi bàyyiwu ma maa ngi gëstu ji gëstu. la ak lan nga fi saxal ma moom. waaw fii daal euh, lii pesti chinois la ay pépinière pesti chinois la. waaw bii pesti frisé la hmm, lii ay pépinière la après dama koy tas. waaw. Euh, kon lii la ñuy lii yëpp micro jardinage la mais pépinière boo déggee comme par exemple yi nga xam ne semence yi dafa sew. yooyu danga koy pépinière soo ko pépinière ba pare danga koy tas dem ci li ñuy wax repiquage xam nga. boo jógee am na yoo xam ne la moom soxlawul pépinière da nga koy def semi direct comme par exemple ay ñoom concombre yooyu graines yi dafa dafa dijj yooyu soxlawul pépinière semi direct nga koy def ay navet affaire yooyu ay radis waaw mais yi nga xam ne graines yi dafa sew comme salade persil poivron tomate aubergine chou yooyu da nga koy pépinière boo pépinière ba pare tas ko. waaw maman li nga xamante ne mooy liggéeyu micro jardinage euh, centre de formation la ñu nekk euh, il faut nga. jàngal ji nga xamante ne ñu ñuy seetaan tuuti pour ñu am benn aperçu ci liggéey bi ndax man euh, euh, sob bi nga wax sànq fa laay ñëwaat damaa sob maman euh, gis naa ni gis nga def nga gerte moo xamante ne moom moo sax moom moo nekk genre engrais naka te gerte amul jëriñu boxam yooyu kepp wan nañ see mën a saxal garab dañuy confondre fii gerte bi daf ñuy servir de support de culture du engrais du engrais xam nga par exemple bu may bay ci suuf sama support lan la suuf la mais table bi aw ma suuf donc il faut que ma am support support bi moy liñuy wowe ñun fi le substrat substrat le tudd mélange coque d'arachide coque d'arachide la ak balderie balderie xamna xam ngeen ko moy ceeb bi buñ ko bojé hein ah, mom lañuy jël ak coque d'arachide euh, auparavant trois éléments la sax coque d'arachide balderie ak latérite biñuy dafa xé tali mais dañ dem ba ci biir latérite bi dafa cher c'est un peu coûteux ñu bàyyi

nawet ñep xam nañ ne même bo bayu bayulee sax bo demee marché da ngay gis da fay am pénurie nawet da ngay gis yu bari yo ko am ay persi day gën cher poivron day gën a cher parce que yoy adapté wul ak hivernage à moins que nga am variété hivernale ta variété hivernale c'est un peu coûteux ba paré liggéey bi da fay a metti motax produit bi di cher léegi bu dee salade bi période bu favorable fi ngay pépinière ba fi ngay récolter mun na nekk 45 à 60 jours xam nga bu dee tomate bi aussi. dina nek ba ay 90 jours 3 mois affaire yooyu gis na fi kaani salat nokos nokos la lay tegal de nokos kuko beug def rek si mama mariama nga ñu mama mariama am nañu sax ay fenouy yooyu yëpp pour nokos la ay anet am nañ ko fi nokos la am nañu ay sauge ay marjolaine yooyu yep ay épices la euh, sedd bi metti na yow fajar yor sa satala di arroser euh, di dan sa doole ndax njabot euh, di liggéey li fi ñep bay yow nga koy def

gisuma fi yow rek la fi gis comme soxna bo xamante yang fi xey fiy à part ñe di la jàppale ak nga xamné ñong leen di former yeen jafé jafé nga fi jànkoon jafé jafé bi ma fi am dal mom moy ñax yi ñom sonnal nañ ma ñax bi parce que fi c'est humide bo dindé rek du yag mu ñëwaat lolu jafé jafé la en plus aussi comme c'était un projet projet bi jeex na je me débrouille avec les moyens du bord donc projet xam nga bu jeexee bu lay accompagner bu jeexee nga nar démal demal sa bopp fay métti

coton baax na ci asma dañ koy bolé ak euh, euh feuille moringa ak ngun-ngun ak ngebu feuille nga def ko infusion ji ka naan na docteur bio ngay am fi moy ma mariam fat coton bi ni aussi amna ay graine ci bir mom lañu wowe woowee jo joo supp kooraay wa mhm. kon baax na booy tamit coton baax même boy waccu ni waccu bi arrêté ni balaa ngaa jël Vogalène mën nga jël bi infusé naan. maman euh, gis naa ni lépp luy couche lépp luy euh, lu ñu war a sànni yaa ngi ciy saxal donc rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme maman foofu nga ne d'accord ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy pot yi ngay liggéeyee sànq wax nañ ci table euh, nga expliquer ñu table bi nooy def ba mu taxaw ak lan ngeen koy defaree ñu gis ni am na ay pot ñuy woowee ay recyclage lii boolu plastique bu toj la ëllëg ñu di ko sànni mun nañ cee liggéey ñu bay ci sunu naana. Euh, man la Fari Sakho dëkk fii HLM 4. HLM 4 waaw. Euh, lan moo tax nga taamu toolu Mama Faty. ah neel euh, taamooti parce que dañ daan dem di jënd kaani salaat ak bépp assaisonnement mais dañ daan gis ni ñun volume bi moo ñu ci doon intéressé mm-hmm. c'est-à-dire na rëy rëy bu mag. ñu ne moo bu baax bi mais différence bi moy bima dagué daggee biñ ma jëndee castor ak bima dagué bima jëndé ci ndey affaire bi xet bi rek déjà ça donne envie de manger cru même voilà du coup si laa ko rapproché ñew laaj ko affaire bi lan la parce que différence bi moy bima ko jëndé même tek ko si auto bi si le xet bi commencé donne juk mu expliquer ma affaire bi bio le, yi ngeen di lek dafa am engrais alors que man dama bëgg dund dund maintenant migré la la ñuy wax quantité dal di qualité et depuis dama ci gis ndëriñ mom motax damatuma fenn. di len invité à ce que aussi ngeen bio man parce que nak lu baax dañ koy ba xam ko. waaw pourtant rien ne lui retient mu dem jëli engrais ñëw def ci mu toll ni man mais amul sens. li am sens sens. boo ko joxee àdduna mu defar ko ba mu baax gis ngeen tool bi macha allah ni mu naatee benn soxna képp moo fi xëy di fi wàcc indi ñeneen di leen jàngal ñu ne déet na waay muy jaay waa HLM ndugg ngir bëgg ñu dund loolu lañ indi loon tey ci seen rubrique bi nga xam ne mooy loo si wax jëri ngeen jëf ba beneen incha allah.